bu ñu leen nuyu rafetlu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey nag seen acte du jour dañ koy daal di doore ak cérémonie CAF Award bi nga xamante ni daal dinañ koy amal ni démb foofa ca Rabat Maroc lañ ca mën a jàpp nag Sénégal daal dina jël lépp lu fay trophée ñu daal di sax mën a cité kii di Sadio Mané daal di jëlaat Ballon d'Or pour une deuxième fois waaye tamit leneen lu ñu nemmeeku Pape Makhtar Sarr tournée bi ci at mi waaye tamit euh, coach gaynde yi di Aliou Cissé tamit kenn demul mu des jël na raay meilleur entraîneur loolu nag daal di nekk ay trophée yoo xamante mën nañ jàpp ne Sénégal daal dinay raafal lépp ci euh, loolu nag ñoom sax daal di am mbégte bu baax a baax daal di déj rek seen trophée ñi nga xamante ni sax moom moo di askanu Sénégal ak ni ñu leen supporté ni ki démb nag Sénégal daal dinay yënguwaat lool ñu dundaat sax la ñu dundoon ca Coupe d'Afrique ba ndax kat kii di Sadio Mané nekk nañu une fierté nationale gannaaw Ndiaye daal dinay kontaan lool euh, daal di rek yëkkati ay kàddu euh, déjee li nga xamante moom moo di ñaareelu ballon d'or bi ñii di waa Sénégal yëpp euh, ñu jàppoon sax di El Hadj Ousseynou Diouf moom mooy le seul africain boo xamante ni nekk sax sénégalais doonoon double ballon d'or ni ki démb nag kii di Sadio Mané daal dinay amal li ni mel daal di jël rek ñaareelu ballon d'oram na nag ñoo am kontaante bu baax a baax leneen lu ñu nemmeeku ci cérémonie ba kii di Diaw Ketchup nekk ab influenceur ñu jàpp ne sax moom rek la ñu foofa ca CAF waaye tamit leneen loo xamante ni ah, jib na sax ci bile cérémonie ah, ñu daal di jàpp sax ne ah, ñii di sénégalais ni kii démb sax daal di nañuy kontaan lool jubilé waat bu baax a baax ci seen doomu euh, doomu Sénégal yooyu nga xamante ni sax teewal nañ drapeau national jël rek lépp luy trophée kii di Zeyna Ndour nag ku ne xam ne sax coow la mu juróon rek ci diggam ak Sadio Mané ni ki démb nag daal dinay kontaan lool jubilé sax ci trophée bi nga xamante ni kii di Sadio Mané daal dina koy jël waaye tamit keneen ku teew foofa muy la star planétaire di Youssou Ndour ak kii di doom ji di Mandela mu mel ni sax moom la ñuy gis noonu Mandela ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Aliou Cissé ak Sadio Mané daal di amal ab photo Sénégal yëpp daanaka daal di nañuy teewoon rek di supporter ñi nga xamante ni sax moom moo di yi Sénégal yi nga xamante ni sax ñoom ñoo teewoon foofu rek jël lépp lu fa nekk trophée ci euh, leneen la ñuy wax euh, kii di euh, Thiaba nekk doom ci Fatmata Ndiaye Fouta Tampi gannaaw révélation yu doy waar yi nga xamante ni defoon na ko ci diggam ak ki nga xamante ne moom moo di Yaye mel ni nag coow daal di nay jibaat ndax kii di tantam nekk sœur ci kii di Fatmata Ndiaye Fouta Tampi daal di nay woote rek ci ab émission en direct di démentir rek lépp loo xamante ni kaddu la yu Thiaba yëkkati woon rek teg ko ci deru Yaye Dia ci sax lu jëm ci wàllum traitance boo xamante ni demeewul noonu ñu daal di koy jàppee sax ay métital yoo xamante xamante ni ah, mën nañu wax ne moom la ca ba wax ne kii di yaay ji di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi daal dina koy def waaye nag ah, tante ji daal di génn rek weddi li ni mel di xam ne sax ne kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ah, doom ya mu am yëpp yar na leen leen war a yare te ba toppatoo jote tamit dina leen toppatoo mu mel ni nag kaddu yi daal dinay wute lool la ci kii di caba ak tante ji di nekk sax sœur ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ci keneen la ñuy wax muy Aba No Stress moom nag nekk na animateur boo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal waaye tamit ñu gis complicité bi nga xamante ni am na nag ci diggam ak kii di euh, ma di euh, mami euh, loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax moom Aba mu yamal ab vidéo rek ñu daal di gis sax mu daal di proche trop ci jabar ji gannaaw si lool sax dañuy daal di gis rek muy daal di affiché rek ki nga xamante ne moom moo di jabar ji ñoom la ñuy gis noonu ñoom ñaar ñu daal di am benn complicité boo xamante ni dox na seen digg waaye ñeneen ñu am ab complicité rek muy kii di xaas moom nag ñu dal di koy gën a xam sax ci Abdoulaye Euh, mu nekk sax borom kër ci kii di Soumboulou Bathily moom xaas nag gis nañu ak vidéo yi nga xamante ni sax dafay faral rek di ko publier di tooñ ki nga xamante ne moom moo di soxnaam euh, di Soumboulou Bathily waaye ñoom tamit nag daal dinañu am benn complicité boo xamante ni dox na seen diggante mu nekk ab couple boo xam ne sax mën nañu wax ne ab référence fii ci Sénégal waaye nag récemment vidéo bi nga xamante ni xaas daal dina koy publier mu mel ni sax dafay daal di sànni xeer ki nga xamante ne moom moo di Soumboulou tamit jaare ko ci doomam ji di soxna jaara mu koy wax sax wax naan ko bul jël yuuxu yi nga xamante ni sax sa yaay mu ngi koy def lool nekk ay tooñ yoo xamante ni moom Abdoulaye Diop Khass rek mu ngi koy def a jëmal ko ci soxnaam si di Soumboulou ci kat bi la ñuy wax di Viviane Chidid moom nag mu ngay woy rek di amal ay tournée moom mu nekk euh, benn chanteuse boo xamante ni sax daal di nay mën solo lool daal di rek am loo xamante ni sax mën nañu wax ab style bu particulier la moom Viviane Chidid nag mu nga foofa ca euh, Los Angeles loolu nag di waajal ab show boo xamante ni sax mën nañ wax daf ko faa war tëgg euh, moom Viviane la ñuy gis noonu mu daal di def rek ensemble short nekk rek ci mbeddu Los Angeles waajal bu baax a baax xamante ni fas yéene na ko faa amal. lu métti moom moo daal di dal ci jet setteuse bi di yaa awa rasul moom nag après tabaski bi dafa dal di rek am ab l' accident ñu ñu jàpp ne sax ne accident bi doon na accident boo xamante ni sax métti na lool moom mooy yaa awa rasul xanaa rek di ko ñaana rek yàlla yëkkatiwaat ko ci jàmm ak salaam. ci keneen la ñuy wax muy Badiane nekk sax koo xamante ni dafay joué rek ci yenn ci ay série sénégalaise moom Badiane nag gannaaw ba nga xamante ni sax kii di Wally Ballago Seck daal dina koy may oto bi nga xamante ni rek promettroon na ko loolu nag gannaaw concert yi nga xamante ni Wally Ballago Seck mu ngi ko doon amal rek mu nekk ab tournée nationale moom Badiane nag daal dinay génn amal ab vidéo loolu nag bokk na rek ci di défendre Wally Ballago Seck ci acte boobu sax nga xamante ni daal dina koy def jëm ci ab teranga may ko ab woto waaye nag Badiane Euh, ay kaddu rek yoo xamante ni yëkkati na ko muy wax sax na képp ku nar a dalati ci kaw Wally Seck rek di nga jaar ci kawam ba noppi euh, loolu nag nekk yoo xamante ni sax moom bàjjen yëkkati na ko ngir pare rek euh, taxaw tem ngir défendre rek ki nga xamante ni sax moom moo di Wally Ballago Seck ci leneen la ñuy wax jëm rek ci kaddu yi nga xamante ni kii di Coura Macky daal dina koy yëkkati loolu nag jëmal ko ci kii di Queen Biz moom nag yàq na Queen Biz lu mel ni xeme loolu nag jëm rek ci di wax sax naan Queen Biz dafay dal di topp rek ñi nga xamante xamante ne dañoo daal di am tur loolu bokk na sax ci a wax moom moo di Sadio Mané léegi nag muy wax sax naan di ne moom yëkkati yi le kaddu rek muy wax sax naan euh, loolu nag mu ngi jëm rek ci euh, ki nga xamante ne moom moo di Kumba Diallo ñu gën ko xam ma ci Queen Biz yàqu ko lu mel ni xamee rek jëm nag ci politique bi nga xamante ni sax daal dina ci sóobu ab ojo bu daal di fuité loolu nag ki nga xamante ni sax moom moo ko doon déglu muy Adamo moom nag gannaaw ba xamante ni sax ojo ba moom ko daal di teg rek mu mel ni sax ay kàddu yi Adji Sarr la ñuy daal di dégg rek ci bile ojo moom aji Sarr nag muy wax sax ñi nga xamante ni moom mooy jigéen yi ko jàppale ci combat bi nga xamante ni mu ngi koy mëne jëm rek ci diggam ak kii di Ousmane Sonko moom Adji Sarr nag lam ci wax muy naan kii di Gabriel Kane kii di Mati Trois Pommes ak Koura Macky wala sax Fatou Ndiaye Fouta Tampi bi euh, ñoom nag ñoom ñoo daal di rek nekk ñoo xamante ni euh, bokk nañ sax ci li nga xamante ni euh, xeexle nañ ko ko waaye tamit la mu jeexalee ay kàddoom rek muy wax naan am na yenn jigéen yoo xamante ni sax dañoo daal di ragal rek bokk sax ci bile complot mu mel ni nag coow li nga xamante ni jub na ci diggam ak kii di Ousmane Sonko moom a gannaaw audio bi nga xamante ni daal nay fuité mu mel ni sax ab complot la bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di Adamo mi tekk bile audio moom Adji Sarr yëkkati na ay kàddu lim ñi nga combat waaye tamit la mu jeexale nag mu mel ni sax dafa dal di wax rek naan ñenn ñi dañoo daal di ragal rek bokk ci xeex bi ndax kat euh, dafa mel ni sax ab complot boo xamante ni sax moom mu ngi koy def rek ak ñi nga xamante ni sax jot na leen a lim ci bile audio gannaaw fa ay dara teew foofa ca Fuuta euh, di amal rek ay vacances am dund sax li nga xamante ne moom moo di tradition beneen tiktokeuse di wuyoo ci Faynara moom tamit daal dinay teew rek ca village ba di amal rek li nga xamante ni sax moom moo di ay vacances am mu ñoo di tiktokers yi sax daal ñuy jël rek yenn ci ay vacances yoo xamante ni dañ koy passé rek ci seen village mu daal di doon ay actes yoo xamante ni c'est bu baax a baax. kii di ministre Mansour Faye nekk maire bu Saint-Louis gannaaw xamante ni sax fësuloon na rek ci page Facebook am ne dafay may rek doomam bu jigéen bii di satu moom nag ci fàttali amoon na sax ab reportage boo xamante ni am na chaîne de télévision bu mag boo xamante ni defoon na ko jëm rek ci ferme bi nga xamante ni daal dina koy am moom ay Aïssatou nag ni ki démb daal dinañ koy may rek. rek mu mel ni sax madame Sarr lay wuyoo loolu nag gannaaw ba nga xamante ni kii di Baye Dia di Mansour Faye daal di nay rek publier woon bile takk foofu nag ca page Facebook am jeexalee ki nga xamante ni moom moo di Farba Ngom gannaaw ba nga xamante ni sax ñaari jeunes yu daal di génn rek ab vidéo jëm ki nga xamante ni moom moo di Farba Ngom ak kaddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko muy wax sax naan Ousmane Sonko mën na def campagne am waaye du teew foofa ca diwaanu Fouta waaye nag mu mel ni vidéo boobu génn rek ñoom dañoo daal di weddi li ni mel ndax kii di Ousmane Sonko dañoo jàpp ne sax ne daal dinay teew rek foofa ca Fuuta daal di fay amal rek li nga xamante ne ah, moom moo di ay campagne am di weddi bu baax a baax kàddu ya nga xamante ni ah, kii di Farba Ngom yëkkati woon na ko mbokk yi safandoon ñu teewlu li leen leen andi loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal close notification bañ a dara suñu information jërë jëf